asalaamaaleykum mbokk internet yi dal leen jaam si seen chaîne YouTube Leral Foot mbokk mi si c'est la première fois ngay ñëw suñu chaîne bi ñu ngi lay ñaan nga abonné wu activé cloche notification bi comme ça nga bañ a raté suñuy prochaine vidéo waa tey mbokk yi tey ñu ànd ak wax ci Ibrahima Diallo mu di rakku Abdou Diallo bu nekk ci équipe nationale du Sénégal waa tey ñu ànd ak yéen wax ci Ibrahima Diallo moom bu nekkoon fële stade de Brest. que moom mu ngi judd le 8 3e mois. 1999 Azam réel a 23 ans mu di militaire récupérateur di évoluer fële si Southampton mu signé ben contrat fi 2024 xam nga. moom nag mu ngi débuté Brest en 2018 2019 ci équipe B bi la après 2019 2020 ñu yéegloo ko ci équipe A bi mu def 2 ans. ci la Southampton lañ ko ciblé même Arsenal tamit bëggoon nañ booy bi trop mais à la fin Southampton ñoo ko mujjee jënd quoi ci 15 millions d'euros fa la signé ci mais nag depuis mu dem Southampton naka gis ne mu mu def ay match yu baax ah milieu terrain bi dafa dëgër këg d'ailleurs sax ci ci fële ci Angleterre ah, am na ñu koy woowee foofu ah Ngolo Kanté gars yi dañ moom mooy le futur Ngolo Kanté ndax na muy joxewu ci biir football bi quoi du bàyyi dara. wala der la quoi der la man moom man lu ma gis kii moom euh, mën na nekk remplaçant suñu Nampalys Mendy quoi tu vois comme Sarr kii nii da nga koy woo xool nga koy nga koy teg ci banc bi nii xool des fois di remplacer Nampalys Mendy ak moom xool booy bi di jàngale nank-nank di jàngale ba mu miin ba mu miin suñu sélection bi Sarr hmm. ni Aliou Cissé nii la ñu war a def jéem a woo booy yi nii parce que lu mu yàgg-yàgg suñu suñu kan suñu ndaanaan yu fa nekk ñoom lu mu yàgg-yàgg dañu bàyyi tu vois ah parce que Nampalys Mendy boo xoolee fu mu toll mu ngi ay 30 ans gaaw na ñëw si équipe nationale bi mais mu ngi ay 30 ans j'espère waaw 30 ans su ma juumul loolu la yor xoolal loolu ah léegi yi ngay jéem a xëcc heure bii nii nga xëcc leen nga indi leen su boobaa ñële saa yu ñu kii rek après boo yi nii ñoom dañuy ñëw parce que ñun bu ñu deful tout booy bi ñëw am na ñeneen ñuy dugg ci dossier bi dossier booy bi ah parce que boo xoolee loolu moo ñu dal ci kaw sofian Diop bi ba Maroc. devancé ñu laa mën a wax sax ci cas ci kii dossier Sofiane Diop te Maroc fu mu ñoom carrément que dugg nañ carrément ci dossier Sofiane Diop. pour man nag dossier booy warul métti quoi warul métti te pour la benn magam moom mu ngi joué pour équipe nationale Sénégal tu vois kon tey jii nii magam rek bu waxee am moom xëy na mu nangu tu vois te en plus tamit ñun fu mu toll suñu fédération dafa influent trop. ok information ah. di leen ne bu leen fàtte abonné wu activé comme ça ngeen bañ a raté tamit suñu yeneen vidéo ñu war a ñëw ngeen aimé tamit ah ngeen partagé ndax bi gën a yaatu ok di leen dig daje ci kanam ak ay yeneen vidéo jaa ngeen jëf.